ci fi nga xam ni moom moo di euh, Touba moom Sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre dellu si na ci yoon wi nga xam ne moom moo di euh, Ila Touba ay milliards yu bare yoo xam ne président de la République dugal na ko ci Sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre dellu si na it ci li nga xam ne moom moo jàpp jëm ci wàllu assainissement bi ndax wax na ni boobu ak euh, léegi ci atum 2012 président de la république jot na dugal lu ëpp ñeent fukki milliards ak juróom ci li nga xam ne moo jàpp jëm ci wàllu assainissement bi wax na sax ne xëy na du yàgg li nga xam ne mooy problème assainissement dina dëddu tuuba ba faaw si na ci li nga xam ne moo jàpp jëm ci lu mel ni université bi ndax jamono yi nga xamee ne xalif général des mourides wax na ni day defar université président de la république dafa wax ni dogu na moom jël en charge li nga xam ne moo di defarum université boobu waaye xalif général des mourides daf ko waxoon dafa bëgg a taalibe yi dugal ci seeni loxo loolu sax moo waral moom président ni ko wàllu assainissement bi wàllu courant bi moom dina ko jël en charge ci université bu mag boobu nga xam ne moo di université Khadim Rasoul xam ngeen euh, Bassirou sëñ Bassirou Bakke Abdou Khare ci kàddoom it jàpp nañ ci lu mel ni l'hôpital bu mag bi nga xam ne président de la république tabax na ko fii ci Touba yàggul bi mu ñëwee inauguré ko fii waaye it jàpp nañu ne lu mel ni ay tëli jot na ko fi defar wax na sax ne tali bu fi mujj defar moom mooy tali bi nga xam ne moom la ñu dippee 30 moom président de la république dugal ci koppar yu bare bare bare fii ci Touba. loolu sax euh, le xalif général des Mourides daal di koy euh, doge bëggoon jël kàddu gi pour dëggal pour firndeel rek loolee nga xam ne sëñ Bass Abdou Khadre wax na ko ci bilan bi nga xam ne président de la république def na ko moom sëñ Bass Abdou Khadre wax na it ne kilifa gi dénku na ko. mu wax président Macky Sall ne kontaan na ci li nga xam ne noonu la doxalee ci bopp réew mi waaye it kontaan na ci li nga xam ne noonu la waxee ni noonu la bëgg jeexale li nga xam ne moo di mandaawam ci bopp réew mi wax na ko nag ni ko daal loolu rafetlu naa ko bu baax a baax ndax nag wane nga ni daal loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy li jaar yoon mel ni daal kaddu yi nga xam ne président de la république wala boog porte parole xalif général des mourides yëkkati na ko nekk na ay kaddu gërëm ay kaddu sant ay kaddu ndokkale njiitu réew mi son excellence Macky Sall moom bi mu jëlee kàddu ñëpp dégg nañu li mu wax gërëm na sant na waajuram kilifaam xalif général des Mourides ci ni nga xam ne noonu la ko dalale waaye it rafetlu na bu baax jàppale yi nga xam ne ko jàppale ci wàllu liggéeyam jàppale ko it ci wàllu lépp loo xam ne moom moo di programme yu mu lal fii ci Touba ndax xam ngeen ci wàllu assainissement bi rek am na ab xàll bu mag boo xam ne toll na ci 60 hectares yoo xam ne xalif général des Mourides koo baaxee kër gi nga xam ne moo di ONAS ngir ñu mën a amal seen liggéey ci anam yi nga xam ne noonu la la gënee loolee lépp pour wax rek ne liggéey bi diggante gouvernement bi ak euh, xalif général des murit nekk na liggéey boo xam ne yàgg na rafet yàgg na euh, ratax nekk nag liggéey boo xam ne gis nañu résultat yi ndax nag ci yaatuwaayu Touba ci màggaayu Touba résultat yi kon gis nañ ko nekk na ay résultat yu am solo te boobu ak léegi ñëpp ràññee nañu ne Touba ci màggaay ci yaatuwaay ci àllu jumtukaay yi nga xam ni it moom la ñuy liggéeyee loolu yëpp nekk na ay jumtukaay yoo xam ne daal gis nañu ne yokk na ci fànn yëpp yëpp sànq maa ngi koy wax ba ci sax li nga xam ne moo jàpp jëm ci wàllu njàng mi ndax université bu Touba xam ngeen ni yàggul it président ñëwoon na fi ci ay jamono ñu waroon ko inauguré boobu it bi mu fi ñëwee dégg ngeen kàddu yi nga xam ne xalif général des mourides wax na ko gërëm ko sant ko ndax ci wàllu njàngale mi rek am na ci ay professeur ay borom xam-xam yu bare yoo xam ne gouvernement bu Sénégal ñoom ñoo leen yebal ñoom ñu ñëw itam jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo yi ci njàng mi ndax ñu mën a am kon lépp loo xam ne jëm na ci wàllu formation yi nga xam ne moom la ñu soxla woon ci université euh, Cheikhul Khadim président de la République du yàgg dina génn ci fi nga xam ni moom moo di euh, salon bu résidence xalif euh, général des Mourides su ko defee ñu mën ko présenter berne yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ndax xam ngeen at mu jot bu ñëwee suñu mbokku taalibe yi day am ay berne yoo xam ne dañ koy jëlee fu ne ci Touba ak li ko war a indi ko ngir nag paxe ko son excellence le président de la république tey itam noonu la ci fii ñu nekkee nii ci suñu wet suñu ndey door am na ci béréb boo xam ne it foofee indi nañ fa ay berne yu am solo yoo xam ne daal dañ koo jagleel président de la république muy berne yoo xam ne it noonu ci wàllu aada ci wàllu ko euh, cosaan dañ koy amal saa soo xamee ni kon ab kilifa ñëw na loolu yemul rek ci président xam ngeen ko ndax euh, fii saa yoo xamee ni xew-xew yu mel nii am na wala yeneen i bis sax su nekkee ni gan ñëw na noonu lay demee rawati bu njiitu réew mi ñëwee mu di président de la république ñëw fekk si ki nga xam ne moo di papaam di kóolëreem di xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou mbake moom mi nga xam ne kon moom moo nekk ci xilaafa gi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te am wér ngeen gis ko léegi ci kaddu yi nga xam ne dénk na ko Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre mu indil ko ñi nga xam ne ñoom ñooy topp télévision nationale indil ko njabootuk lislaam yëpp indil ko Sénégal yëpp ndax euh, ci ñaan yi nga xam ne it euh, jib na fi ay ñaanu yokk jàmm ak salaam la ay ñaanu yokkute ngir Sénégal gën naat ay ñaan la it ngir nawet bi nga xam ne Sénégal dëgmal na ko mu nekk nawetu jàmm ak salaam nekk nawet boo xam ne yokkute rek lay doon fii ci réewu Sénégal mel ni nag euh, président de la République du yàgg dina génn su ko defee bu génnee rek mu ñu ma leen a euh, won berne yi nga xam ne ñoo ngi ni berne yi Omar Ndiaye di leen ko euh, won gis ngeen berne yi noonu nekk na ay berne yoo nga xamee ne taalibe yi dañ koy baaxee président de la république ak euh, délégation bi nga xam ne moom la àndal ci ay jamono biñ koy amal fi nga xam ne moom di résidence Khadim Rasoul daanaka jàppoon nañ sax ne euh, fépp ci biir résidence bi amoon na ay euh, bool ak i ndab yoo xam ne lépp ay xéwal kese la moo ci nekkoon tey gis ngeen biñ ko amalee fii ci Daaru Marnaan noonu la demee muy ci wàllu lekk ci wàllu naan ay xéwal ci wàllu ay fruits ak lépp loo xam ne daal baax na ci nganale loolu lépp daal pour leen yeeg jaañeen nii xam naa président bu gestoo rek ñoom la koy jox ndax faaleen yeeg jaañeen yeeg gayeen yi ñoom ñëpp ñoo ngi xaar ngir mën a profito xéewlu nii rek lay demee daanaka jamonoy safar xam ngeen bi ñu duggee ci safar bi ba léegi muy ndakaaru muy euh, fii ci Touba ak yeneen yi dëkk noonu la demee ba sax ci bitim réew suñu mbokk yi nekk diaspora bi noonu lañ koy amalee ba 18 safar incha allah noonu lañ koy amalee ci wàllug euh, jàngum alxuraan ci wàllu li nga xam ne moo di xasaayit yi waaye ci lépp loo xam ne jàpp na jëm ci wàllu xéewal yi nga xam ne moom la ñuy baaxee kon taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii ci Touba Ibrahima laa Diédhiou mu ngi woon ci biir salle bi xam naa ni moom it ñàkkul am na lu mu gis am na lu mu dégg maa ngi doon dégg dellu léegi ci euh, euh, discours bi nga xam ne président wala boog porte parole xalif général des Mourides euh, jot na ko def sànq muy mel ni discours boo xam ne bilan la bu am solo bu mu présenté ci wàllu wone kontante xalif général de Mourides ci li nga xam ne moo di liggéeyu président de la république. Ah, am na yu bëri sax ah, sëñ ba xam nga moom day jottali kàddu sëñ bi waaye dem nañu bés benn euh, moment benn instant sëñ mu taxaa boppam moo ko fàttali yenn yi. Mm-hmm. ndax dafa mi ñuy wax sax ni mm-hmm. am na yu bëri yoo xam ne président doonul bëgg sax nit yi mm-hmm. xam ko. waaw xam nga 300 millions yi wax si affaire université bi. am na beneen un milliard boo xam ne sëñ bi moo ñu ko xamal tey loo xamante ne seen diggante la la la yemoon. Mm. moo tax li may wax rek ñoom daal ñoom ñaar seen diggante ñoom ku si nekk. am na daal complicité daal. waaw am na dayoo bu <laughs> ah. bu mu am daal. Ah. moo tax commentaire yi def lu bëri parce que li sëñ bas Bass wax tënk na lépp si diggante Macky Sall ak sëñ Mountakha parce que bi ñuy wax mbirum poroxaan boobu ba léegi. Euh, président da wax ni Porokhane dañ dañ dañ koy xëccoo te waaw man jiitu naa fa ñu bëre loolu yëpp day wane ay mbir moo tax daal ñoom ñaar ñu ngi si biir di waxtaan xam naa dina am yeneen yoo xamante ne bu soobee yàlla su cérémonie bi officielle bi jotee incha allah mardi du ñàkk rek euh, sëñ Bass dina yëkkatiwaat kàddu sëñ bi wax ñu li nga xamante ne moom la fas yéene euh, jottali askan bi waaye ñu ngi fàttali encore une fois investissement yi nga xam ne nguur gi def na ko fi. comme ni ñu ko waxee rek 45 milliards si assainissement yow topp nga dossier boobu c'est vrai que Touba saa su ne assainissement moo gën a jafe nag soo seetloo mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal ah parce que dañuy nit yi dañuy dëkk bi pare doog a xalaat assainir am na yeneen mbir yoo xamante ne aussi sëñ bi fàttali na ko fàttali na affaire université bi fàttali mbirum ndox bi courant bi xam nga ni poste Touba 2 bi rek réglé na problème mu mm-hmm. courant waaw ba si tali ak yeneen. bu mujj bi ma ngoog mhm. ak yeneen yoo xamante ne bon président Macky Sall def na ko fii si turu askanu Sénégal parce que li may wax rek loo def si këru diine rek Sénégal nga ko defal. Mhm. parce que ñun ñëpp dañuy daje foofu. waaw moom moom lu mu mënti métti métti métti rek même si wàllu politique dañ fay daje. Mhm. moo tax nañu gën a bàyyi xel rek si li nga xamante ne moo ñuy dajale. Euh, plutôt que lu ñuy féewale. Mhm. waaw muy lu am solo Ibrahima euh, Diédhiou ma waxoon leen mi ngi demoon ci biir euh, salle bi ngir gën a jege li nga xam ne moo di xew bi naka nga gisee nag xar xar xar kanam yi ndax gis naa ci benn instant xalif bi kontaan na ba <laughs> sax muy muy muy muy ree dëgg-dëgg moom sax dañ ko xamee saa su nekk di di seen bëñ yi waaye tey defe naa ni. waaw bi nga xamee ni moom sëñ Bass Abdou Khadre jël na kàddu boo wax lu bare ci bilan président de la république moom xalif bi dafa mel ni dafa bëggoon na jël kaddu. <laughs> waaw waaw loolu da ko doon fàttali rek. yenn yenn mbir parce que xam nga Macky Sall moo njëkk wax président moo njëkk wax ni euh, bii mooy màggal boo xam ne mooy mujj en tant que président de la république moo fiy ñëw. te euh, si kàttanu yàlla am na keneen koo xamante ne déwén moo fi ñëw jot li waxu. nguur gi waxu Sénégal du ma la dox sax biir waxtaan bi porte parole wax na ne xalif général des mourides mi ngi rafetlu ni nga xamee ni président noonu la bëggee euh, jeexale mandat wam hmm. waaw waaw parce que daf ko ne lu gën a jafe mm-hmm. mooy jël nguur joxe ko ci anam yu rafet xam président mi ngi fàttali ni waxoon na ko ci 2019 ni bëgg na mandat bi nekk mandat bu mujj ci euh, mandat bi moo tax sëñ Mountakha sax sëñ Bas jottali na ko nee na ko fi nga jëm moo gën mhm. na sa xel dal moo tax li ñuy wax rek xam nga nguur moom yàlla moo koy joxe waaye am na loo xamante ne tamit ah jàmm daal moo moo moo gën yenn yi mhm. moo tax président xaw ma daal lu ko yàlla di defal ñun duñu duñu ay sëriñ duñu ay gis gisaane ah noonu la ñuy waxee ah. waaye bépp ndam bu mu am si mhm. fi lekk ay at ak fu mu mënti mujj rek na mu Sénégal lay nekk te comme que sëñ bi daalal na xelam ne fi nga jëm de na sa xel dal moo gën ah kon de am na gars yu ñuy laam-laamee si si depuis bi mu waxee nii du nekk candidat am na yu bëri yu gars di laam-laamee. réew waxtaan la. <laughs> réew réewu am na bon am na wax sur le plan international président hmm. Macky Sall waaye li ñuy ñaan rek mooy doomu Sénégal yi yëpp. am am ndam si li ñuy def. Mhm. maanaam képp koo xam ne da nga jóg pour liggéeyal réew mi daal lan la si yàlla jàppale jiitu la si. Mhm. et puis euh, comme que kilifa diine yi comme ni ñu ko doon wax sànq rek ñoom wàllu diine bi ñoom am na tolluwaay bu ñu am. Mhm, waaw lu leen yàlla dénk. waaw nañu sàkku ñaan rek si ñoom ñu ñaanal ñëpp ba képp koo xamante ne da nga jóg pour defar Sénégal wala liggéeyal Sénégal nga mën ko def si anam yu rafet ba mu nekk loo xamante ne. day nekk euh, njëriñu askan bi yëpp daal. Mhm. loolu daal la ñuy ñaan te jàpp naa ni sëñ Mountakha parce que sëñ Macky Sall wax na ko neena ko maa ngi lay dénk. Mhm. maa ngi lay gën a dénk Sénégal. Mhm. ndax fu ñu jëm si mbirum pétrole ak gaz. ak lu ñu wër si sous région bi. day baax lool kilifa diine yi di artu yenn saa yi ñuy yëkkati seen kàddu di artu waaye xam nga am na yoo xamante ne kenn du ko wax si kaw. waaw mën nañ ko liggéey yenn saa comme mi ñuy wax rek balaa ngay am dix étage dafay def fondement bu wóor waaye su lépp pare lu si kaw la ñuy gis waaye li nekk si suuf moo téye lépp. Mhm. loolu tax euh, président nee na daal mi ngi dénk Sénégal kilifa diine yi mën nañu jàpp ni c'est un message fort bu mu euh, jagleel ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi pour que saa su mu nekk fi bañ fi nekk keneen nekk fi tamit Sénégal mën a jëriñoo li nga xamante ne moo di ressources yooyu di pétrole ak gaz ba pare. lépp mu nekk si jàmm parce que li ñuy wax rek sànq la jàmm jàmm jàmm jël nguur ki si jàmm joxe ko si jàmm te fu ñu toll nii jàpp naa ni ñu bëri war na ñu mën a gën a surtout om politique yi gën a mën a jege kilifa diine yi di leen di sàkku seen ñaan di leen déglu. waa am na solo parce que c'est pas parce que da ngay politique rek que yaa gën a muus koo gis wala yaa gën a ëpp xam-xam koo gis wala yaa ëpp pexe. am na ñoo xamante ne seen xëy rek xëyul si ñenn ñi moo tax dañuy ñaan rek le spirituel et le temporel continuer communier ensemble et puis voilà ñun ñëpp daal ñu ànd bokk euh, ndey ak baay du ñàkk moom am ay divergence waaye nañu fexe daal ba l' li gën a li li gën a li gën a essentiel si Sénégal ñu jël ko teg ko si table bi waaw. li gën a essentiel muy euh, càmm ji muy euh, naataange gi xam nga ñu ngi nekk ci nawet. yàlla def na boobaak léegi sax daanaka dëkk yu ci bare ñi ngi ñi ngi taw keroog euh, maa ngi jóge boori Kolda Sédhiou Ziguinchor macha allah wert la def waaye boo demee it euh, fii ci digg Sénégal foofu it euh, macha allah mi ngi taw ba Ndakaaru Njaay sax fan yi mi ngi taw loolu it defe naa bu ñu ñëwee ci jamono yu mel nii defe naa kilifa yu mel nii bu ñu dajee ak ñoom seen ñaan dina ci am solo gis naa bi ñuy jeexal xalif bi nee na nañu tàllal loxo yi Euh, taw moom ay xéwal la. Mhm. mën na indi ay jafe-jafe si dëkkuwaay yi tout ça mais benn période la. Mhm. parce que de toute façon yàlla moom. Mhm. yenn saa dañ koy wax sax suy defar day mel ni luy yàq. de toute façon laataa ngay tabax dara moom faw nga am loo toj wala faw di nga tibb suuf wala nga in wala nga ut xeer wala yooyu. fu ñu toll nii ñaan daal la ñuy sàkku si réew mi parce que Sénégal li ko teg bët bëri na. ñu bëri sax dañuy jaaxle ba léegi ni Sénégal continuer nekk dëkku jàmm. am na yu bëri yoo xamante ne si dëkk ñuy wër rek. wax dëgg yàlla li fa nekk maam ak yéene ko suñu réew. parce que dafa nekk loo xamante ne mooy première matière mooy maa ngi répété sa première matière première au Sénégal. moo di jàmm. jàmm ji waaw parce que de toute façon même muy États-Unis muy France muy feneen au aucun développement ne peut se faire sans la paix. mënul nekk jàmm ji nag homme politique yi dañ ko war a dox. kilifa diine yi taxaw si di si ñaan parce que l'essentiel mooy xale yi nga xamante ne ñooy màgg si ñu fekk fi réew bu dal ba nga xamante ne suñu bëggee jàng ñu dem jàng suñu bëggee faju ñu dem faju Sénégal nag soixante et la am d'indépendance mhm. utee na ak dëkk yoo xam ne ñu ngi si ay trois siècles quatre ñoom seen ba mën a def seen développement waaye teewul ay doomu aadama yu fi nekk ñu am xel mën nañu liggéey ba Sénégal jëm kanam et puis suñu amee ay kilifa yu mel nii nga xamante ne wax dëgg yàlla am na fu ñu toll si seen borom ah nañu sant rek ba li nga xamante ne moom lañuy mbëbët si suñu réew ba xale yi mën a màgg si jàmm bañ a xalaat ni bitim réew rek mooy jubluwaay bi. loolu yàlla nañ ko yàlla def rek ba Sénégal képp ku fi nekk rek nga mën a dund si confort euh, jàmm ak ni koy waxee yàlla dina ko def incha allah li nga wax léegi am na ci solo lool ndax ci wàllu koom-koom réew mu mel ni Sénégal dem bay xaar lu mel ni pétrole wala lu mel ni gaz loolu it euh, ni ñu koy waxee c'est pas à la portée de de tous les pays Sénégal xëy na loolu xéewal la ci moom mais xéewal la boo xam ne tamit wax nga ko léegi am na solo ñu toppatoo ko entretenir ko te président de la République defe naa teg na fi ay ay ay charte ak i fondement soo xool lu mel ni euh, ITIE mu ngi fi ah ay publier ce que que ce que vous vous vous vous produisez. waaw publier ce que vous gagnez. vous gagnez yooyu yëpp xam nga mi ngi. la <laughs> société civile voilà société ay ay ay ay mode de transparence la yoo xam ne pour wane ni pour leeree rek benn jafe-jafe du am te yooyu yëpp président de la république teg na ko fi pour que nit ñi suñu sukkandikoo ci yooyu warul am benn jafe-jafe xëy ci des mooy ñaan yi nga xam ne moo ñu war a gunge su ko defee yooyu bu ñu gunge benn jafe jafe du am ci lu mel ni pétrole benn jafe-jafe du am lu mel ni gaz ndax lool tam dénk nañ ko ay borom xam xam yow yaa ma gën a xam am na sax école de formation yoo xam ne ci wàllu pétrole wàllu gaz pétrole euh, teg na fi lu mel ni pétrole naka euh, pétro euh, gaz cos pétro gaz voilà cos mm. pétro gaz teg ko fi yooyu yëpp pour mën a def ay maître Malick moo fi moo nekk Ousmane Ndiaye moo fa nekk kon léegi maître Malick Sall moo fa nekk ñoom Manar mm. Sall mm. ñëpp invité nañu leen ci télévision bi ñu expliqué am na fi lu mel ni ay ay ay bateau yu ñu war a explorer wala exploité xam nga ay jamono yoon nañ fi ku mel ne aram ndaw sax mu dem bitim réew xooli bateau yooyu ñu ñëw yooyu yëpp pour mbir yi mën a leer mu am transparence ba nga xam ne benn jafe-jafe benn réero bu yàlla defee jàmm du am te lu ku ci nekk di nga ci mën a jot sa wërsëg naataange defe naa bu ñëwee pour man la pour yow la pour keneen pour keneen la te loolu it président de la république xam na ko te loolu la sàkku ndax loolu tax mu junj wax nga ko sànq lépp duñ ko mën a wax nag ci discours yu mel nii li ngay mën rek mooy junj te junj ne ko kilifa gi pour mu ñaanal Sénégal pour que at yii di ñëw donte ni pétrole boobu ak gaz boobu am na jàmm ji gën a sax gën a wéy bëri ñu déggoo ci kàddu ba nga xam ne loolu ne waa Mauritanie sax ñu ngi ciy profité te pourtant ci Sénégal la feeñee loolee lépp rek pour wane rek kon ne réew mi moom noonu rek la mën a doxee te noonu lay doxee incha allah waaw xam nga affaire pétrole ak gaz suñ koy wax hmm. si Afrique lañ si gën a tiit daal hmm. soo seetloo am na dëkk yoo xam ne am nañu pétrole am nañu gaz ah hmm. soo demee si arabe yi am na nañu pétrole soo demee yeneen dëkk yi nekk continent euh, asiatique wala États-Unis voilà je veux mais mais Afrique régime politique yi ñooy tax nit ñi di moo tax su demee ba Sénégal continue nekk un havre de paix. ba pare nekk un modèle démocratique quoi qu'on dise institution yaa ngi dox. médias yi ñu ngi wax seen xalaat. ah assemblée à la limite opposition ak pouvoir ñoo fa toll. bon justice bi. ñi ngi def seen liggéey. yenn saa yi ñu critiqué leen yenn saa yi ñu. dëkkal leen fu ñu dëkkul yenn saa yi waaw ñoom daal ñi ngi def li ñuy def. Mhm. institution yaa ngi dox. Mhm. waaye ku nekk na gën a góorgóorlu. pour que Sénégal du doy du lu koy defar nga jiitu si daal man loolu laa jàpp et puis ñaan bi daal du ma sa doy. parce que comme ni ñu koy waxee rek bépp développement nit a tax mu jóg. Mhm. toute politique de développement est destinée à l'humain. te comme que ay nit rek a fi nekk Sénégal. dañuy fekk képp koo xam ne dénk nañ la ay lenge pour que nga mën a liggéeyal Sénégal nga def ko. si anam yu gën a rafetee ba pare nit ñi ma si gës seen bopp. ndax loolu mooy jaamu yàlla bu gën a mag si loolu laa jàpp waaw moo tax daal dañuy bàyyi rek xam naa waa Dakar ñu wéyal liggéey bi. waaw dañu leen parce que waaw euh, attendant dañu bëggoon ñu fekkee fi président fi ñu koy présenté Bernelli. waaye dafa mel ni président dafa nekk ak xalif bi ci euh, audience. waaw du ñàkk xëy na ci ay image après daan ci dellusiwaat ñu ngi may wax sax ni booru 20 heures war nga duggaat ci incursion yi. su ko defee ñu gën a mën a dellusiwaat ci li nga xam ne moom moo fi fi xew xam naa ne loolu ci kanam lay doon Ibrahima. waaw xam nga benn dafa am misaal bu si nekk. xam nga du ay mbirum lekk rek ñuy présenté nii. Uh-huh. déjà teranga la Sénégal dëkku teranga la. Uh-huh. générosité la te maa ngi koy dégg si uh-huh. tàndarma. joxe lekk bokk ni si xeetu jaamu yàlla yu gën. imaam Mohamed Diop maa ngi bàyyi xel bu baax si li muy wax. waaye dafa am leneen tamit lu si lépp loo gis. ñu koy jëfandikoo tey fii si Touba. mu jëm si biiru séeréer yi. koom-koom la. économie bi dafay dox. ginaar desatul. nen amatul. ceeb yi. diwlin yi tomate yi. loolu yëpp ñu koy jaay dañuy am tey koppar. Mhm. maanaam màggal gi rek am na lu bëri lu muy indi. si prospérité réew mi mais surtout si poosu nit yi. te loolu nag bernel moo ko mooy misaal bi. Mhm. waaw jërëjëf Adja <laughs> dafa mel ni Adja Ramata Dem Rama Boy ak euh, Omar Diaw est-ce que ñoom it nekkuñ ci roq bi di di safar ndax xam nga foofu ci réaction bi di safar ñoom it yow fan yi yaa ngi indaale sa naka lañ koy waxee sax yaag sa waa ji ah café café Touba Adja Dem kon dañ leen bëggoon dëgtal euh, berneel yi mais bu nekkee ne soxla ngeen antenne bi tamit euh, Ibrahima mën nga leen ko jox waaw ñu ñu ñu ñu ñu jox leen antenne bi rek en attendant que ñuy xelli kafe gi fii ñu yóbbante leen ko Euh, antenne bi rek. jërëjëf euh, Ibra Mame euh, Moussa Niang Ibrahima waxtaan bi incha allah mu nekk production ngeen bës bi bokk ci programme bi ah di jot toutes les informations nationales internationales